di ko saf le plus grand architecte architecte du monde le plus grand architecte ah reconnu mooy yàlla day tabax doomu aadama ba pare defar doomu aadama ba mu rafet mu def ci ay defo def ci ay qualité ah alors Wally Seck moom ni muy liggéeyee ni muy sawaree ni muy amee pas-pas loolu yëpp suñu borom la parce que du lu ma tànn mun na na ma def ma doon ku yaafus je pense que su ma bëggee tontu ci question bi delloo ko ci moom rek mu gën a sedd. soxna Aïdara ban la lan la joué ci sa carrière soxna si Wally soxna moom a njëkk siiw moom njëkk am million ah oui. soxna moomu njëkk a siiw moomu njëkk a am million moomu sax njëkk a am oto soxna c'est c'est comme une mère pour Wally. jàmbaar la jàmbaar la yàlla bu ko cat dugg la yàlla bu ko cat Sénégal Buzz 221. ñu bu baax waaye tey dama bëgg ñu waxtaan rek ci li nga xamante ne mooy musique saa su ne dañuy faral di dégg. Hmm. yéen artistes seen li ci ëpp. Hmm. da ngeen di woy mbëggeel. Ah. tey ñu toll jamono boo xamante ne saa su ne artistes mën nañu ni ay morceaux bu dee dix la mën nañu ne cinq yi wala six la. Hmm. ñu toll jamono boo xamante ne Sénégal saa su ne dañuy nemmeeku li nga xamante ne mooy violence boo faaw. yéen artistes yi di woy mbëggeel. yéen dund bëgg bëggante ñoo mm. loolu gis naka nga xamante ne ñoo leen déglu ay mos waaw loolu day euh, bu noble la da ngay déglu waali ah temps en temps waaw waaw way violence ah parle de non à la violence portée par les femmes way naa ko cause la bu noble la ah, jigéen ñooy suñu yaay jigéen eh, eh, la yàlla cëral jigéen moo jur imam moo jur président ah je pense que loolu képp kuy artiste nga xam ko ak nga ñàkk ko xam nga bëgg ko ak ko ñàkk ko bëgg soo disoon ñuy toroxal jigéen du la neex dafa fekk ñi rek ñun artiste bi musique mooy suñu liggéey moo ñu dundal suñu gagne-pain yàlla ci musique la ko jaarale te yéen sénégalais wala ñenn ñi ci ñenn ñi ci sénégalais su ma jëlee exemple ci suma papa Thione c'était le plus grand parolier de ce pays woy na lu ne su ma jëlee exemple ci papa Youssou Ndour woy na booy picc lépp luy tem ci àdduna jox nañu ko actuellement on est au vingt unième siècle te lii jaay mbëggeel daf ci bokk partout dans le monde moo say def it yëpp ça parle de mbëggeel love système nag boo ko fekkee doo ko détourné wala nga contourné ko di nga fexee nag noo bokk ci système bi même di ñu say touche nànk-nànk mais yow su ma génnewul album boo xamante ni lépp lépp thème la ah di ne nice na ci ngeen yem de waaye bu ngeen di baal moom morceau mbëggeel bi ngeen di baal <laughs> donc ñun bu ñu ba xam loolu nag dañ leen dañuy topp ñenn ñi ci seen i kii rek di leen waaw waaw leen xam waaye bu ñu waree génne ñu xam nañ li nga xamante ne mooy caay ñu génne ko. Euh, wax naa ko déggoo mel ne way naa no way naa no more no more violence ah? jigéen kenn du ko toroxal jigéen desu ko dóor waaw ah, ah? góor war na mën a am gentleman wu soo gisee lu la naqari soo ko mënta muñ nga génn nga dem soo mënul ànd ak moom match la ngeen bàyyante ku ne dem parce que ànd rafet na taqali ko am na mais pour dóorante reyante jaru ko dañ ci ñaaw rek dañ ciy ñaaw rek parce que longo ne am na waaye koo bàyyi mu ànd ak mu demam bagam waaw vraiment moom warul dóor ko waaw. a lay déglu. juste tamit gis nañu fan waaw maa ngi koy wax félicitation génn na kay alhamdulilah leen delluwaat ci njabootam parce que bu leen fàtte ni Bougane dama jur samay jarbaat bu leen fàtte ni bu aspect politique jàllee lépp jàll ay sénégalais lañ nag ah? tey lu mu metti metti metti metti boo xoolee Bougane Gueye yéen Ousmane Sonko mu mu dem euh, bàq ya Ousmane Sonko boo bee bi yéen wul ko mu dem bàq ya dañuy politique rek ah te yéen xam ngeen ni politique demee donc ñoom ñëpp ñun ñëpp bëggante bu ñu boo suñu ku ku doo jël sa moroom di ko teg yéen d'accord alors ce qui s'est passé du ma ciy sori parce que du man maa ko war a wax waa sama gis-gis je préfère le garder pour moi. parce que Sénégal dafa naqare waxee Sénégal dafa naqare waxee sama gis-gis je préfère le garder pour moi d'accord euh, yàlla dafa dogal ni ñu ñooy premier président yi waaw ñun président amul jot président bu génnee balaa moo génnaat président réew mi doy ko sëkk ak barke mais ñun ñooy premier président yi ñun waykat yi ñooy premier ambassadeur yi ñooy premier ministre yi ñoom dañ leen élire dëgg la peuple bi ah ci suffrage mais ñun dañuy élire peuple daf ñuy élire à vie ba keroog ñuy sàngoo suuf ñun ay président la ñuy doon donc ñoo bokk li ñuy liggéey c'est dañoo bokkul ni ñuy fayee ko dañoo bokk it ni ñuy waxee dañoo bokkul ak ni ñuy communiquer mais ñun ñuy ñun artistes yi premier président réew mi parce que ñooy dem fu ne di représenter Sénégal. Baye Zane ne voilà. waaye il est il est euh, Baye ma maa ngi leen di ñaan de ngeen baal ma yabuma leen ngeen may ma ma 30 secondes ma kii rek am na importance loolu maa ngi koy tuub nag. Eh, du ma dara lu garaaw li may wax làqatuwul. maa